tey nag gis ngeen lu xew maire woote na dama soxla agent yëpp waxtaan ak agent yi waxkat yu rafet wax dëgg neex yàlla nit ñi dégg nañ ko woon carrément nit ñi ne juboo juboo ko gënal ndax mooy intérêt Kaolack mooy intérêt ñëpp muy agent yeeg muy moom ak muy population beeg muy dëkk beeg lépp juboo moo si gën di leen wax ne ñun dafa am loo xam ne si principe boobu nañ nekkoon principe boobu noonu ba tey génnun ci muy lépp lu ñu mu wax danañ ko def waaye lépp loo xam ne yoon may nañu ko dinañ ñu ko jox lépp lu ko yoon may moom muy maire dinañ ko ko delloo depuis une semaine syndicat yi jóge neen Dakar ñëw waxta def ay réunion xam def nañ ko ak agent yi def nañ ay réunion yoo xam ne def nañ ko ak meer waa société civile bi ñu teg li nga xam ne tey jii mooy charte yi ne lii la maire yi doxee yow agent bi lii la la yoon may yow meer bi lii la la yoon may yow agent bi yoon mayu la lii yow maire bi yoon mayu la ñu teg ko waxante dëgg teg mbir mi si kayit problème bi lu muy yëg guy rëy rëy rëy rëy yëpp bi da nga ko tënk si si kayit bind ko moom wax ne lii la ko war ñu ne lii na doon cause na doon na doon xeex moom mu ne lépp lu doon xeex loo xam yoon may nañu ko bàyyi na ko tey bu affaire bi amee ba pare ba réunion waxtaan juboo def leen état de lieu muy ñi nga xam muy ñun man gagaay yi ñoom Cheikh Seck Abdou Khader ñi nga xam ñooy suñ ay njiit ay ñoom Ousmane Ousmane Dieng dem si lieu bu nekk dem leen état civil ñoom ñu ne après neen ñëw neen dugg seen bureau yi ñoo ñu génn dem neen fu ñu war a dem yëpp ba police municipale dem leen dem leen dem leen si kaw comptabilité dem neen fu ñu war a dem yëpp pour ñoom ñu rejoindre seen place yi mën a liggéey ñu noonu wax code étranger ak yenn affaire yooyu yëpp wax def neen ko ba leeral ko ñun nag juboo moo ñu gënal waaw ñu ngi nag teg benn tànk bi di déglu di xool ba xam ndax lu mu wax ak syndicat bi ak lu mu wax ak agent yi ndax dina ko jëfee su ko jëfee rek ñu indi beneen tànk bi ànd liggéey juboo waaye su ko jëfeewul tamit ñu nekk si lu nekkoon rek ñu nekk si lu nekkoon rek kon nag mbir mi na nga koy teg si yoon su ko tegee si yoon nit ñi teg ko si yoon su ko tegu si yoon tamit nit ñi nekk si lu nekkoon rek asalaamaaleykum pour ñi nga xam ne xamuñ ñu déggee ko noonu